Thank you. tey ci terrain bi ñuy wax terrain garage waaye li fi am mooy tournoi bi nga xam ni Thiès production moo ko organisé le président Thiès Ba tey jiite boobu label mooy tournoi boo xam ne daf ko débuté woon tuddee ko woon nag ki nga xam ne doomu jaxaaw la waaye def lu ne biir jaxaaw tudd Naba Fall nekk doomu jaxaaw boo xam ne tey euh, ñu koy ñaanal bu baax te mu nekk na ko gën a waaye lii ñu def nii tey jaxaaw lañ ko defaral ñëpp ñëw àndandoo waaye nag ñuy dégg suñu micro ki nga xam ni mooy frère euh, teewal ko fi muy monsieur Moïse Fall ànd ak ki nga xam ni mooy turandoo ki ñu tuddee tournoi bi waaye dañuy dégg fii Moïse na nga def. waaw maa ngi leen gërëm di leen sant di gërëm seen xale bi di gërëm population Diakhao di gërëm waajur di gërëm ñëpp di leen wax ne vraiment kontaan naa làbba yàlla na yàlla yàlla na leer wàcc ko yàlla ko yàlla xale ak mboolem ñoom fa fekk. wax ne vraiment yéen dama leen di remercier di remercier Thiel xam nga moo ko ci Thiel rek Thiel maa moom du fii dañoo nekkoon ci àll bi ñëwaat nañu Sénégal wax naa ko léegi nee naa ko dafa bëgg rëy loo xam ne personne ne l'a réussi parce que lii yow yaa ko mën a réussir yàlla teg ci loxoom ngeen jàppale ko di leen sant di sant yàlla di sant ñëpp sant population Jaxaaw bi euh, mu def loo xam ni euh, defe naa ni Jaxaaw yëpp bëggoon nañ ko def ndax bisu Lamba Fall defe naa ni kenn ku ne nekk na sa xol biir Jaxaaw pour nga defal ko lu mel nii yàlla euh, def lu mel nii tey Jaxaaw yëpp ànd ci booloo nekk benn tey ban message ngay wax population Jaxaw population du ma gëm du ma du ma lu leen wax jërëjëf parce que xam naa ne làmba seen làmba la parce que mooy li ma waxoon rek waa Jaxaw ñoom ñoo moomoon làmba li ñu xam ci làmba man xaw woon vraiment tey moom fay nañ ko borom ba mu parce que taxawaay yi rafet na tournoi bi jaar na yoon ñëpp kontaan nañ. vraiment tey jii moom bu ëpp woon moom vraiment dina xam defal ñu ko bu rëy ñun xamuñu bu ñu dee ndax lépp nañ ko am donc dañuy sant yàlla waa Jaxaw yëpp ñoo bokk nag bu ko jiyee defee tamit boole nit ñëpp parce que moom xol bi dafa yaatu xol bi di ko ñaanal ay projet am rek yàlla jàppale ko ci biir yëpp ñëpp buñ cee euh, lii tamit soo ko gisee muy staff bi nga xam ne mooy Thiès production euh, ki nga xam ne muy sa doomu ndey sa xarit Thiès jiite ko euh, mu nekk appui boo xam ne daf ko bëgg a tegal ASC Jaxaaw mais renaissance su Jaxaaw tamit ñu bëgg mu gën a jëm ci kanam ban xalaat nga am. waaw Thiès moom koo xam ne xam ne Jaxaaw la dëkk dafa yàgg bëgg Jaxaaw parce que li ma la wax rek nekkoon nañ ci àll bi daan ñu ngi doon nit moom koy ñaanal da koy ñaanal yàlla bu fekkee tatal ay projet xam naa ko yàlla ko ci yàlla defal jàmm parce que jax cee amul lu jaxaw bëgg sport ñun tamit bu xamuñu lu sport bëgg renaissance bëgg jaxaw fu jaxaw deewee ñu deewee fa parce que yàgg ci jaxaw yàlla leen yàlla defal ndam yàlla defal ko ci ASC defal ko tamit renaissance ñu delloo woon ñu déglu woon ki nga xam ne mooy frère Laba Fall di Moïse Fall teewal ko fi tamit en tant que parrain kon Doudou ñu dem xooli yeneen membre pour ñu mën leen a déglu baax a baax di taxaw ak ki nga xam ne mooy jiite label bi nga xam ne mooy Thié production nekk Thié monsieur Thié Kouaté nga xam ne moo jiite label bi di Thié production organiser lu toll nii jaxaw boobu ba léegi tournoi bi ñu ngi koy organiser mais chaque jour soo fi ñëwee dafay mel ni final waaye ñuy ñuy def mémorial ki nga xam ni doomu jaxaaw la ñëpp xam ko euh, feu Lamba Fall euh, président la nga def. waaw ñu ngi sant di gërëm yàlla suñu borom di am mbégte ak contentement ci bés bi vraiment di santaat yàlla. Euh, commencé nañ ko ci bisimilah rahmaani rahiim tey ñu ko yeggal ci alhamdulilah rabbil alamin ñu am ci contentement bu mag a euh, a kontaan ndax mémorial euh, Laba Fall. Euh, lii def ko jaxaaw yëpp egg si mais ñoom nga ko defal en même temps mu nekk loo xam ne ñëpp ci kontaan ñëpp ñëw ànd ceeg yow ñu gis si loo xam ne defe naa ne fii garage jour bu ne jaar na fi mais lii li fi am tey defe naa mosu fee am nga ñëw fi lan la sa dem. non sama yaram daw na sama xel dem na ci sama papa bu ko jaxaaw euh, sama xel dem na tey ci Grand Kona euh, sama xel dem na ci tey Ndaxte Diop sama xel dem na ci Yunus Diop sama xel dem na ci ancien yu jaxaaw sama xel dem na ci grand poisson mi vraiment tey moom wax dëgg yàlla yaram daw na euh, am naa mbégte nag wax dëgg yàlla mbégte bu mag a mag euh, di sant nag la famille Fall la famille de Laba Fall di sant le parrain parce que wax dëgg yàlla nit nga xewle nit bàyyi ay yitteem fekk si la te moom ay doomu jaxaaw yoo xam ne tey waroon nañ ma fekk si lii doomu euh, Grand Thiès ñëw fekk si ma moo loola waral tey ma jagleel ko bés bi ñu toll fii tey ngay séentu xëy na nit koo xam ni yaa ko woo fii bu ko dalal bu ko won li nga xam ni mooy jaxaw te Thiès Production suñ ma dee wax da nga ñëw pour dimbale nekk ci ginnaaw ASC e bi mais ci ginnaawu renaissance pour appuyer leen nekk doole boo xam ne da leen di pousse waaw loolu loolu mooy li nga xam ni moo waral Thiès Production Thiès Production tey dafa war dafa taxaw pour nekk bouclier ci ginnaaw Aïssa Diakhao ak renaissance bu Diakhao parce que am na loo xam ne tey dafa manqué Diakhao te yàgg na koy manqué ñun dañoo bëgg dem phase nationale dañoo bëgg ren Diakhao jël coupe loolu tax ñu nekk ci ginnaaw xale yi. fas yéene leen a jàppate pour que Jaxaw mën a gisaat boppam ci nawetaan euh, ASC bi démb ñu gis ko mu génn am victoire ñu gis la fa nga indi délégation mag indi sa ndimbal mais lan ngay wax tey ci ñi nga xam ni ñoo nekk ci ginnaaw ASC Jaxaw muy supporter yi ban euh, kàddu nga leen waaw di sant supporter yi di sant le président de l'ASC Jaxaw di sant l'ensemble des joueurs yi nga xam ne ñoo compétir sant aussi l'entraîneur de Diakhao di sant aussi tous les supporters de Diakhao parce que tey lii vraiment Gossas mérite la te it tournoi bi am na lu bari lu mu ci joué parce que fexe na ba dajale ay doomu jaxaaw ñu compétir am ndam loo xam ne jaxaaw yëpp dañ cee kontaan kon vraiment gàcce ngaalaama ci production. sa gu mujj lan la. mais santaat leen rek di sant waa ci production am mbégte di sant bu baax sax bi vraiment am na ci mbégte franchement di sant vraiment dañoo kontaan amuñu sax lu ñuy wax vraiment di gërëm ñëpp fii rek ñu lay gërëm bu baax a yi leer na tontu yi leer na macha allah yal nañu yàlla may ñu tegale ko ci ñun bismillahi rahmaani rahim ci barke moo doon président ki nga xam ne mooy président staff bi nga xam ne mooy Thiès production ñu dem dajju leen ma ceeku waa macha euh, ñu ngi ci tournoi bi nga xam ni label bi di ci production moo ko organisé muy euh, mémorial Feu Laba Fall ñu dégg suñu micro rek ki nga xam ni mooy le doyen Peul saw ñëpp xam ko ci jaxaw doyen na rek. maa ngi fi rek salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen ziar leen doon jox seen wàccuwaay jox télé bi. yàlla na ko yàlla yóbbu ca kanam parce que gis naa ni fu um, um, bor yi nekk yéene la waaw. Euh, nga ñëw ci final bi defe naa ni gis fii loo xam ne defe naa ni yombul ci final euh, lan ba nga ñëwee sa xel ci lu mu ne. waaw man bi ma ñëwee dama am benn sentiment de satisfaction euh, tout d'abord di gërëm ci parce que li mu ne dafa def lu rëy rëy rëy lu lu waa Jaxaaw yëpp xalaat moom mu xalaat ko à l'initié lu mel nii. ñu gis ci vraiment lu rëy lu ngand ngand la parce que Laba ki mu mérite na plus que ça dans Jaxaw parce que il a porté il a porté Jaxaw dans son cœur ba ni demee il a porté Jaxaw je crois que Laba football Jaxaw vraiment petite catégorie bi sax école de football yi sax ñi ci jëkkal xaalis ci la bokk donc il mérite tout ça il mérite plus que ça bu ko cee defee nag dañ ko ci remercier di ko ci gërëm et puis cee dafa dundal quartier bi cette année. ci dafa redoubler dundal quartier bi cette année élan bi quartier bi am je crois que ci moom la jógee ba élan bi ñu am ko muy élan buy continuer euh, sur le plan politique quartier bi jëm ci kanam trop trop trop trop. Euh, label bi nga xam ne mooy Thiès production euh, Thiès Kouaté initié ko mais dafa ñëw pour nekk benn bouclier ci ASC Jaxaaw mais ba tey mu nekk benn. moo ñëw porter renaissance yóbbu ko fu moom moom moo ko war a mën a yóbbu ca kaw a kaw a kaw a kaw parce que label bi lu baax la ci. planète bi da koy dañ koy encore encouragé topp ci gannaawam fu mu nekk ñu nekk fa parce que moom moo war a porter renaissance moo a porter jax jaxaaw mu dem ci lamb boobu gën a mag ci le euh, ñu gis ASC bi génn yàlla defal leen victoire. Euh, Euh, boobu lan ban lan ngay ñaaxee joueurs yi ak supporters yi. leen ñaax rek pour que ñu ñu continuer ci discipline bi ñuy demee demee parce que démb on a gagné avec la manière. football bi jaxaw bi nit ñi bëggoon ci jaxaw moom la ñu gis démb jaxaw def ko avec la manière gagner avec la manière mais dañ koy continuer nag yokk discipline bi demander aux supporters aussi qu'ils soient plus disciplinés ci kaw stade bi pour que euh, euh, euh, culturellement jaxaw dafa war a dundaat moom laay wax léegi ñoom Ndiassé da ngeen war a dundal koñ bi ren ren koñ bi dafa war a jël lépp. ci le plan culturel sax lépp commence comme ni ko Thié waxee j'ai demandé à la commission culturelle que Thié commencé nee na puudar dañ koy commencé il faut ngeen commencé puudar dans def ko jël au moins ko ci PAM bi organiser ko def pour ngeen dem ko pour pour l' animation culturelle du quartier vraiment. merci beaucoup. Doudou ñu xaar mën ko jox euh, sport pour di mën a la jeunesse faire en sorte que ñu mën a canaliser son énergie loolu mënuñu def lu dul di ko rafetloo donc euh, Thieb euh, féliciter ci première édition bi di ñaan yàlla mu may ñu ba édition y ñu koy mën a pérenniser dans le temps mais en tout cas c'est une excellente initiative qu'il faut saluer et jàpp c'est une initiative qui doit faire tache d'huile dans euh, la ville de Thiès mais au-delà de la ville au niveau a baax ne la meilleure équipe gagnera ce trophée incha allah waaw violence moom euh, nekk lu ñu rafetloo te bu ñu xoolee le mouvement navétane li ko tax a jóg c'est tout sauf la violence donc euh, il faut que la jeunesse revienne à la raison ñu xam ni nawetaan bu jotee c' est un moyen d' expression des énergies ñu xool ndax li ñuy mën a canaliser énergie yu xale yi et en faire quelque chose de positif et au delà maintenant des nawet parce que xam nga seulement football mais bu ñu fàtte ne ASC yi c' est également culturel. ñu xool exactement exactement donc je pense que si on parvient à concilier le sport et la culture dina wàññi euh, li nga xam ne violence et puis. Euh, dirigeants yi président de l'ASC yi war nañu toog di waxtaan ñu xam ne au delà de tout bu ñu organisé nawetaan rek ki njëkk gagné mooy le sport. ki si topp moom mooy localité bi ko organisé ki si topp moom mooy la jeunesse de façon générale donc euh, violence moom la violence n'a pas sa place elle n'a pas sa raison d'être donc euh, su amee rek peut être dafay fekk nit ñi di lan mooy enjeu yi mais euh, gëm nañu ne li ñu def lii muy nekk précurseur u nawetaan gëm nañ ne cette fois moom les choses on va dans la bonne direction incha allah. non-violence également ci les voies ci quartier yi parce que football suñ ko waxee association sportive et culturelle la ñu wax. production Tizo production kenn du lay waaye délégation Tizo production bi waaw

waxtaan voilà bu si def la ni leen ko waxee rek euh, arrivé parrain bi la ñu toll nii ñu ngi nii di doog a ñëw di Al bi nga xam ne moo ni jiital wareef euh, moom ñu invité ko ci tournoi bi mais mu nekk parrain bi nekk koo xam ne Thiès yëpp dañ ko bëgg lii defe naa ne cee initié tey muy tournoi boo xam ne jaxaaw yëpp commencé ànd ci muy euh, ki nga xam ne dañ ko defal memorial mémorial muy Fala Ba Fall président na nga def. waaw maa euh, kontaan ci euh, mën a waxtaan ak yéen di seen i euh, internautes ci seen i téléspectateurs di seet noo leen président tey nga ñëw ci tournoi bu mel nii waxuma mosoo ñëw ci tournoi bu mel nii mais tournoi bu mel nii nga gis jaxaw yëpp maase bëggoon koo def ci def ko tey pour teel a tournoi bu mel nii nga ñëw fi gis fii nit ñi toll nii lan. non lii moom dañuy sant yàlla ba pare. ndax euh, organiser ay tournoi yombul nga organiser tournoi bu mel waa jaxaw yëpp génn wuyu si la kon loolu dañuy félicité ci Kouyaté euh, félicité parce que ku fi ñëw di nga xam ne lii organiser ko yombul woote ñëpp génn. loolu lu jafe la te gars yi gën nañ vraiment en masse donc vraiment ñu koy féliciter bu baax euh, xam naa réussite moom déjà moom elle est déjà là li des mooy ñu xool équipe yi kan moo ciy jël trophée mais vraiment c'est une très belle réussite. Euh, euh, Thié mu def label boo xam ne tuddee ko c production ñëw ci ginnaaw ASC Jaxaaw mais ñëw ci ginnaaw renaissance bi nga xam ne moo nekk euh, ci ligue bi vraiment mu nekk ku bëgg a nekk bouclier boo xam ni day accompagner équipe bi ci lépp loo xam ne équipe bi dugal na ci loxoom loolu lan moo ci waaw mais loolu boo xam nga moom dafa nekk di jouer benn rôle boo xamante ne ci développement bu Jaxaaw jaarale ko ci sport te loolu. sport dafa am lu muy def ci doomu aadama dafa am lu muy joué ci quartier mais dafa am lu muy joué également ci gox moom nag il a fait le choix de s'activer pour di jàppale lu xam à travers sport donc vraiment loolu approche bu am solo la ndax sport tey mënu la ko génnee ci processus de développement te man dama jàpp personnellement ne l'économie du sport dafa war a doon loo xamante ne la ñu war a dëmbal la bu ñu jaaree nag ci lu toll ni ay association euh, sportive et culturelle ko ci club ko ci quartier yi loolu day indi loo xamante ne vraiment lu am soxla lool ci quartier yi donc vraiment mënuñu def lu di ko rafetlu et di ko encouragé. Euh, ban message ngay jox euh, jeunesse bi nga xam ne tey football dafa nekk seen xol euh, te ñëpp bëgg ñu def ko ci dal def ko ci fair play micro loo xam ne nawetaan sans violence lañ bëgg lan ngay wax. waaw xale yi li ma leen di yóbbante mooy nawetaan am na doole boo xam ne biir Sénégal waruñu ci boole benn violence parce que bu ci boole violence rek. conséquence yi mooy autorité yi bu ñu demee ba gis ne lii mënul doon wéy parce que violence kese la mën nañu ko arrêté yéen a gis fan yi par exemple TikTok arrêté woon nañ ko wàññi réseau yi reste jàpp fu mu amulee rek kon dafa mën am lu baax kon da ngay xam ne nawetaan c'est un moyen d'expression boo xamante ne bu am solo la ça fait maintenant une trentaine d'années bi nga xam ni foo la xam ni c'est un moyen de se distraire et également c'est un moyen de se construire sur le kon suuf ko defee nag yàlla jàppale na a am nawetaan jërëjëf. Euh, loolu la woon kii de parrain bi Ida Alassane Niang jiital wareef ñu koy gërëm di ko sant waaye ci teewaay bi nga xam ne teew na ko jaxaaw yëpp di ko gërëm di ko sant ndax lii yombul duudu kon ñu dugg seet ñu xool ñeneen. chers téléspectateurs de la RTT TV alors comme ni ko gisee ñu si tiro bi diggante waa Xoddi gi ak waa ASC Léona e waa Xoddi gi ñu ngi doon noonu eh, dugal waa ASC Léona e ñu ngi njëkk a dóor dugal waa Xoddi nag ñu muy équipe fii si euh, terrain Jaxaaw ñu ànd seeg ñu waa Thié production ma si gis ku ni Siré waa Leewtoo ngi ne waaye Diop Diop nii Diop dëkkale na ah toj na bu ndox mi qu'est-ce qu'on na élan door na dugal na door na dugal na Jooru Aïcha e Leewtoo moo door noonu dugal na Jooru Aïcha e Leewtoo moom moo door léegi dugal ba léegi nii kon benn fii si terrain Jaxaaw bu amoon solo la woon jëkki bëtam diggante jour xoddi gi face au gardien de de l'ASC Léona jour xoddi gi face au gardien de l'ASC Léona qu'est-ce qu'il va faire jël na élan mu seetaan ko nu muy def jël na élan ah jël na élan jël on dirait que ñaari équipe yëpp a mën dóor ñaari équipe yëpp a mën dóor pour l'instant benn gardien arrêté gul tir benn joueur 2-2 pour l'instant ay euh, joueur Léona moom moo jël moom mooy waaye dóor noonu na jël qu'est-ce qu'il va faire ñu xool chers spectateurs à la RTT TV jël na élan ah mi def ay zigzag ñu def ay pas de danse am jël na dem na dem na qu'est-ce qu'il fait il tire il marque door na dugal na door na dugal na door na dugal na ba léegi nii match bi dafa ba léegi nii euh, planti bi dafa serré ba léegi nii planti bi tiro bi bi dafa serré ba léegi dem na dem na dem na door na raté na raté na raté na raté na raté na rawatina acca Cheikh téléspectateurs RTT TV waa Léona ñu ñëw dóor noonu tëj na ndox mi tëj na musu ndox mi li muy def day dóor wala rateej face au gardien de l'ASC Xoddu gi tax na mi ngi yëy si ngom naan cokkam cokkam na élan daw na daw na dóor na dugal na bu waa bu waa bu waa lew na bu waa lew na bu waa bu waa xodigi ata gardien de l'ASC xodigi face au gardien de l'ASC lew de xodigi moom maa ngi leen di sant vraiment di wax ni un mois du du benn jour ngeen dégg lu ne daj ne lépp ngir lii euh, taaroo nii di ko seede ci kanamu parrain bi di ko ci euh, waa kër Lamba Fall di wax ci Lamba Fall Diop suñu frère la bu génn àdduna ñu koy fàttaliku di wax ni ndam li aussi génn jaxaaw te lii rek lañ ci doon seen di nuyu aussi euh, l'ensemble bi nga xam ni tey mooy les les dirigeants laay sa jaxaaw nuyu buñ koy def dañ koy jiital ci suñu grand Kosow bi may wax ni moom monument la ci jaxaaw parce que man ndaw yëpp ñëw ah, di santaat bu baax a baax parce que lépp loo ngi lay sant mooy suma secrétaire général bu ma nuyoo staff bi mel ne nuyu naa mais dama koy defal mention spéciale au delà koo àndal plus de cinquante ans mosu leen réeroo dara loolu dafa sincère donc di wax ne rek ngi am mbégte ci ñaari euh, ñaari président ay sa jàpp yi nga xam ni ñoom lañu sargal muy suma mag suma référence grand dan mooy également di wax ci suma rak bat dumbuya parce que ku ne xam na suma diggante ak moom waaye maa ngi koy lancer benn message di ko wax ni man Thié nit laa koo xam ni benn kàddu laa su ma ne la yow la yow la mais maa ngi koy wax la prochaine fois bu ma amee lu mel nii na ma fekk si parce que le président parce que man ku ma xam-xam ni du ma lu ma war koy wax ni ko lii fi am tey du cee mooy gagné du estaf cee production mooy gagné c'est jaxaaw ki gagné donc vraiment euh, président Alassane maa ngi lay sant euh, di wax waa jaxaw gi yëpp nañ ko sant. li tax mooy daf ma defal lu ma kenn defalul dama toog fii pendant un mois kenn ñëwul mu taal otoom fekk si ma ne ma grand lii ngay def de man nii dinaa la ci wéttali mu jël alalam jël dooleem jël xalaatam bu rafet aussi jox ma ko kon li ma jox lépp delloo naa ko jaxaw voilà maa ngi leen di félicité wax ni aussi moom Alassane mënul ñàkk mu sànni ci ay gan da ngeen ma koy may parce que bu am gan da koy teral su ma gan la ma am également la famille de Laba Fall final bi jeex na waaye dañoo war a saafantoo tàggantoo ci jàmm parce que lew na suma kër la xodd gi sama kër la damay ne lew na mooy sama kër ndey xodd gi mooy sama kër bàyyi ku ne xam na suma diggante ak Léona kon yaakaar naa ne di ngeen ma may gan gi mu wax ak yéen ngeen dégg ko ku la defal da koy delloo kon Alassane kaddu yaa ngi noonu macha allah vraiment daal la jàmm ci au nom de toute la vraiment kontaan nañ suñu famille bépp kontaan nañ euh, di la ñaanal yàlla yow ak sa staff ak lépp ak waa jaxaaw tournoi bi yàlla nga ko yàgg di def di def yeneen yu dàq yi comme guddi na wax ji du mën a sori mais vraiment kontaan nañ ñu ngi félicité ñi fi nekk ñëpp. lii mu def jaxaw yëpp ko waroon a def. xëy xool Lamba Fall mu jóge fi ñoom ñaar doon nañ footballandoo mu footballandoo ak Maysa xëy defal ko mémorial. Mhm. defal ko waa jaxaw yëpp lamba nga xam ne xol bi football la ci nekkoon xol bi jaxaw ci nekkoon. mën naa wax ni c'est la c'est le premier enfant de Diakhao bu ñuy wax école de football mu jël xaalisam def moo jëkk a def xaalisam ci école de football. Mhm. donc bu nekk centre formation Diakhao. donc euh, Lamba mérité na plus que ça mais Thié aussi yow mérité nga plus que ça dañuy ñaanal yàlla fii nga jëm ak li nga jëm jaxaw yëpp ngi sa gannaaw quand je dikk dis que ne Diakhao yëpp ngi sa gannaaw mooy ñun ñu ngi ci sa gannaaw te te ñun ñooy Diakhao donc ñu ngi lay ñaan ñaanal yàlla yàlla bu la cat toog. amiin amiin euh, monsieur Niang fi ñu jëm àdduna la yàlla na ci yàlla defal ndam parce que li nga def sagal nga waa jaxaaw sagal sagal cee ci boppam te boo sagalee ci sagal nga waa jaxaaw donc ñu ngi lay remercier ci loolu di ñaan fi ñu jëm yàlla na ci yàlla defal ndam ñu def fekkee ko ak tal ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam am di nekk sama côté frère tey muy Ceeku Yaate di ko féliciter si li mu def di ko encourager parce que nit amul lenn lu goxam te li mu def fii wane na moom li mu def fii wane ne ne moom jaxaw la am te li mu am jox na ko waa jaxaw kon nag ñu ngi lay féliciter di ñaanal yàlla yàlla yàggal sa taxawaay yàlla yokk la fay la li ngay def ñu ngi également. am benn pensée pieuse ci Laba Fall muy suñu frère bi nga xamante ne nekkatu fi waaye ñu koy ñaanal di ñaanal famille am yàlla may leen xolu muñ ñu xam ni suñu borom lu mu def rek dañ koy nangu kon ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom fu mu tëdd yàlla seddal suuf si koom defal ko bépp doomu jullit li ñu gis fii tey muy une très belle finale laa jàpp man mooy c'est sport qui a Jaxaaw moo gagné Thiès moo kon nag ñaari équipe yi nga xam ne dañoo joué kenn doorul keneen ki parce que tiro bi moo leen tàkkale il fallait benn équipe bu gagné waaye nañu jàpp ne ñoom ñaar yëpp gagné nañu parce que n'ont pas démérité te ñoom ñaar yëpp jëluñu but en cours de jeu kon li ñuy dégg ci loolu mooy ñoom ñaar yëpp mérité woon nañu victoire bi mais c'est le sport qui gagne. gis nañ fi benn final boo xamante ne def nañ ko sans violence kon ñaari équipe yi dañ leen war a ériger en exemple ñu ngi jëm ci nawetaan mais équipe nawetaan yëpp jël exemple ci ñaari équipe yi tey ñu ngi jël exemple ci tournoi bi nga xam ne moom moo am parce que tournoi bi yàlla jàppale na leen ba ñu def ko sans violence kon nag lii la Sénégal soxla lii la sport Sénégal soxla kon ñu leen di wax jaxaw yéen day nekk exemple. vous êtes un exemple wane ngeen ko Thiès sur le plan sportif wane leen ko ci yeneen fànn wane ni ngeen ko wane ci yeneen anam nga xam leen ne ñun kontaan nañu dinañu nekk ak suñu frère muy Cheikh Kouyaté ci lépp li nga xamante ne dina ko fi organiser incha allah félicitations à vous tous sa équipe tamit def na liggéey bu rafet ñu ngi koy rafetlu di ko nuyu di nuyu sa secrétaire général di leen ñaanal yàlla sàmm leen defal ko mbépp mag bi fi nekk jërë ngeen jëf.